kàddu fii si Ndenaat fii si Tongoor loolu li ñuy comprendre mooy que école bi ñaari quartier yu mag yooyu la polarisé muy euh, école Kenshiro danaa si dellu si maa ngi yëgi kaddu muy kaddu nuyoo di nuyu waa Yoff di jël nuyoo waa Yoff di ko jox jaraaf mu joxal ma ko ñëpp bu ma ko si tegee si loxoom rek gëm naa ne nuyoo bi dana dem si bépp waa Yoff bon jaraaf maa ngi lay ñaan nga nuyul ma waa Yoff maa ngi lay ñaan nga santal ma waa Yoff maa ngi lay ñaan nga seedal ma si waa Yoff ne li ma gëm mooy li ngeen ma chargé woon mooy ak euh, nu mu mën a demee rek naa gëm ne maa ngi taxaw si làkkoon fàkkoon ñàkkoon lakkoon fakkoon ñàkkoon rakk topp mag doom topp baay bon maa ngi nuyu jaraaf di nuyu bépp ndomb tànk yoof di nuyu président fra yoof di nuyu bépp kuréel bu nekk yoof di nuyu le conseil municipal commencé ko par le bureau municipal jël nuyoo bi di ko teg ci loxo premier adjoint au monsieur Abdou Nar Mbengue parce que li mu wax lépp lu ñu fi def jarul sax ñu suy dalu si parce que ba ngeen ñuy fal dañoo décider jàmm Yoff bon dëgg si loolu la ñu nekk nekk si nag mooy loo def rek xeeb ko may bu baax excellence ambassadeur wu Japon bi fi teew bàyyi ay soxlam yépp ñëw teew si fii si école Kenjiro muy école boo xamante ne mandargal na bu baax diggante Japon ak Sénégal danaa si dellu si may nuyu suñu yaay Assane Mbengue ak ay ganam Abdounaar wax na ko léegi taxawaayam si Yoff lu ne fàng la kenn du ko jeex may nuyu ki xamante ne mooy inspecteur bi yor mbiru jàng fii si Yoff muy une dame remarquable koo xamante ne ma lay gëm naa ne taxawaayam si Yoff c'est déterminant bon maa ngi nuyu baax yëf baax monsieur le ministre décidé woon na ànd ak man ñëw tey mais retenir nañ maag moom une tournée si école Yoff yëpp feek semaine prochaine danaa leen confirmer jour bi bu ko defee genre revue des lay doon mais yéeneen mooy wan mu ñëw dindil boppam plaque bi mais moo ko defee rek mais la ni moom si boppam def na ko euh, nuyu samay gan samay ganu bopp muy euh, monsieur Tamsir Faye muy directeur ANPEJ di nuyu si Émile xamante ne moom moo yore les bourses étudiants sénégalais yi nekk bitim réew ñoom ñaar ñu ñëw gunge ma teewee bés bu tedd bi ma leen di nuyu bu baax may nuyu bu baax les parents d'élèves parents d'élèves yi nag kenn amul seen fay bu ma nuyoo parents d'élèves yi maa ngi nuyu élèves yi di leen gën a ñaax bu baax a baax a baax ci seen taxawaay élèves yi sama message dana ñëw ci ñoom tout à may wax ne tey ubbi tey jàng tey ubbi tey jàng tey rek ci président Macky Sall lañ ko xamee fii ci réew moo am fi moo am Wakam moo am Ñaxaar moo am Bambilor moo am Komfortin euh, moo am fépp si réew mi ubbi tey jàng tey mais ubbi tey jàng tey si président Macky Sall lañ ko xamee mais une année scolaire sans menace de grève aussi président Macky Sall indi si parce que parents d'élèves yi doon nañu am ay tiitaange at mi bu jot di xalaat ñaata weer lañu ñu nar a grève si at mi loolu bu amee léegi day nekk lu exceptionnel ma siy félicité bu baax monsieur le ministre de l' éducation nationale mon collègue et ami Mamadou Talla di wax ne xeex abri provisoire si président Macky Sall lañ ko xalaatee lancer un projet zéro abri provisoire en perspective dans ce pays ba may ñëw fii si école bi juróom-ñaari classe yi fa amoon ñetti abri provisoire lañ woon ñu def fii si Kenchiro moom la ñu def un peu partout au Sénégal et la perspective si biir Sénégal émergent mooy fexe ba le Sénégal fonctionne avec des écoles sans abri provisoire ñu nekk ci biir ministère de l'éducation nationale gis nañ projet boobu ni muy avancé bon dëgg la perspective est extrêmement claire de ce point de vue là loolu nag moo tax résultat yi ñu sentir ko résultat yi ñu am ci baroulet bi gën nañ ko am lool ci Sénégal loolu nag bu mënee am c'est parce que Sénégal dañu am benn gouvernance boo xamante ne situation bu nekk rek am nañ une solution boo xamante ne mooy ñuy permettre ñu adapter la stratégie bi mbas mi duggee ma leen di remercier au passage parents d'élèves yeeg élèves yi ci seen taxawaay parce que ñu ngi ubbi dans un contexte de pandémie Mais nous vivons dans un contexte de pandémie où la situation est maîtrisée et la perspective nous semble être une bonne perspective. Bon, donc, les résultats sont parce que les élèves du Sénégal, nous continuons de faire des cours en ligne, de les appeler pour faire ces résultats. Moi, bon, c'est le nombre de mentions assez bien, le nombre de mentions bien, le nombre de mensonges très bien dañoo bëri lool ba ñi doon dugg école polytechnique liste d'attente bi yëpp ay mention bien lañ mention très bien sax dafa dépassé le nombre de places te loolu gëj na am Sénégal lool bon de gàcce ngalaama son excellence le président Macky Sall pour liggéey bu am solo bi xamante ne def na ko dans éducation nationale def na ko dans l'enseignement supérieur mais def na ko feneen ak feneen dañoo nekk si dëkku mool dañoo nekk ci dëkku géej dañoo nekk ci ñaari quartier yoo xamante ne ñu doon mandargal pêche fii ci bu buñ ci génnee ñaari quartier yi polarisé kenn ci réew li ci des du bëri bon nag may sargal di remercier bu baax son excellence le président Macky Sall parce que nag monsieur wax nga ko sànq son premier discours à la nation en ba mu jëlee kaddu moment boobu ba muy wax man Abdoulaye Diouf Sarr nekkaguma woon maire Yoff ba muy wax maa ngi si biir studio RTS. di déglu discours bi pour bu discours bi pare ma mën a dugg dans un débat boo xam ne dañu waroon discuter ci biir discours bi maak ay gaaw opposition bon nag dégg naa bu baax discours boobu la sa newoon daf ne woon dana relancer les quais de pêche dana defaraat ay quais de pêche ci dëkk bi pour euh, yokk condition de travail yu pêcheurs yi ak les femmes ñi xamante ne dañoo nekk ci géej gi ba mu lemee wax dëgg yàlla bu neexee ngeen jëlaat discours boobu dégluwaat ko quai de pêche Yoff newul woon si quai yi ñu lim pour defaraat ba ma génnee ma am jaaxle tuuti mais bu ma xamee ki ma newal xam bu baax vision xam ne dana junj mais li mu junj li nekk si biir moo ko gën a xóot foofu ba ma demee wax ak moom. lendemain est évident que le quai de pêche de Yoff sera rénové. bu boolee maag bi Ousmane Gueye may sant sama borom di remercier les autorités de Yoff surtout les autorités de la Coudive parce que ba ma ñëwee wax ñoom dañu ma jàppale gunge ma la fa newoon nekkoon benn fondation ñu dindi ko quai de pêche Yoff moom la jëkk inauguré si magistère ou son excellence le président Macky Sall ñu ko si remercier bu baax may profiter si occasion bi di remercier di féliciter ñi yore kër yi parce que nag dañuy évaluer fu ngeen fekk bu ñuy évaluer dañ naan nekk le quai le mieux entretenu le mieux géré ci cette région si région maritime yi nekk si réew kon nag maa ngi remercier bu baax les acteurs de la pêche yéenam ñuy sagal yéenam ñuy jàppale mais excellence yamul foofu daf ne pêche te li may wax nag si dëkku lébu la nekk nekk si dëkku lébu juddoo fi màgge fi lépp fekk ma fi bon nag bu ma neexee wax ko te bu ma ko waxee dem yaakaar naa ne naan seede avant son excellence le président Macky Sall jafe woon na lool ñu gis projet boo xamante dafa jëm si wàllu géej dañ doon yaakaar ne sax ne lépp lu jëm si appui agriculture la war a jëm wala élevage wala feneen ak feneen ak feneen c'était extrêmement rare ñu gis une ambition orientée vers la pêche ñu ngi ko gis avec son excellence le président Macky en quoi faisant xam nañ ne gaal mooy dugg ci géej mais gaal gi dugg ci géej mooy gaal gu am moteur gaal bu amul moteur dana jafee dugal ci biir géej mu ne nag pour ma jàppale pêcheurs yi il faut ma jàppale leen si moteur yi avant da nga doon gis ci tefes gi ñaar ñu am moteur juróom benn bëgg dem géej ñuy abalante moteur yi duñ mën a demandoo benn président Macky Sall ne moteur ñaata lay jar ñu ne ko un million trois cent et quelques mille mu ne léegi lan laay def ku bëgg di moteur si réew mi taxawal naa projet boo xamante ne danaa jël un million bi pêcheur bi jël trois cent mille bon nag président Macky moo yóbbu moteur bi ak trois cent mille francs moo tax tey moteur yi bëri si géej moo tax am na évolution bu favorable boo xamante ne ñun dañ ko war a seede bon ñu leen di remercier sans compter le projet des pirogues yi xamante ne vivre le vert la mooy projet bu am solo mais Yoff si amal na ngërëm son excellence et son gouvernement doon nañ jooy ab lycée ñu ne Yoff dafa war a am un lycée parce que lycée bi fa mu nekk tey seen moo fa ne woon ñu tabax tabax ko laal ba mu nuru obligé mais ñun xamoon nañ ne le projet ambitieux pour Yoff mooy un véritable lycée digne de son ko ñu koy dox muy dëgër ñu koy dox ay at mu jafe ñu koy dox munul nekk mais bi président ñëwee 2012 man de gëmoon naa ne du ñu toog juróomi at. te Yoff amul lycée bu bees tax ñu koy dox ñu foog na ay léb la am na bëri bu ñu leen doon set sax daanaka mais ñeneen toog parce que lii dox nañ koy ànd nañu yem rek si suñu conseil mbële mais ba ma son excellence woowee ne ma terrain bële dem leen ngeen set ko bu mënee nekk un lycée nga dem seeti le ministre de l' éducation nationale mu intégré dans son budget le lycée de tey boo demee fële si booru aéroport di nga fekk le lycée de Yoff mu taxaw et ce lycée là est terminé à quatre-vingt-quinze pour cent barke démb rek laa dem visité ko lépp pare na carrelage bi rek moo des pour que Yoff mën a étraner son lycée un lycée véritablement moderne digne de la commune de Yoff loolu war nañ si remercier son excellence le président Macky Sall Je peux en dire pour le stade Je peux en pour la route de Denat. monsieur maire sa yéene rafet na mais conseil bi danañ ci waxtaanaat. mais la route de Denat est une route historique barka démb rek la joxe instruction pour qu'on démarre cette route dans une semaine dix jours maximum l'entrepreneur bi envoyé woon hier les topographes pour que ñu commencer effectivement les dernières finitions de topographie dana ñëw indi les pavés pour que le travail puisse démarrer maa ngi remercier bu baax a baax vraiment les équipes de l'AGEROUTE parce que liggéey bu am solo may yëkki kaddu nag di ko jëmale ci parents d'élèves yi ak si élèves yi Yoff dëkku jàng la Yoff dëkku mag la Yoff dëkk la boo xamante ne dafa joxe beaucoup de ressources humaines au pays ma bëgg dans le courant du mois de janvier ñu def les assises de l'école de Yoff les assises de l'école de Yoff mooy ñu daje ñun ñëpp les directeurs d'école que je remercie au passage et que je félicite les parents d'élèves les élèves l'association des étudiants de Yoff mais aussi képp koo xamante ne kuréel la si yof ñu dem toog si ñu xamante ne ñoom ñooy borom yof bu mu ne borom yof nag mooy ñi xamante ne démb bi commune la am ñoom ñoom fi newoon ñi xamante ne bu commune fi jógee tam ñoom ñoo fi nekk ñu dem seeti leen waxtaane ko bu ko defee nag ñu teg yof fa mu war a nekk en matière d'excellence projet boobu madame Penda Ndoye dana ko diriger en rapport avec les autorités académiques de notre département